asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di am mbégte janoog yéen ci seen chaîne leader bi lee di Xbox TV comme ni ñu koy waxee à chaque fois rek lépp li nga xamante ni actualité la rek dañ leen koy toppal ku ne xam na ne na jamono ji làmb ji actualité la ndax ay combat yu ama am solo yoo xamante ni rek moom euh, la ñu euh, dëgmal mu nekk suñu kanam waaye nag tey nag ñoo fi nga xamante ni moom mooy pikin seet si fi nag koo xamante ni kenn doot ko présenté Sénégal muy Pape Sarr Pape Sarr ku ne Pikine ne Pape combat Ama Baldé ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo yaakaar naa ni coow li bari na ci polémique bi bari na ci tey nag ba ñu dugg see Pikine gis nañ waa Pikine li nga xamante ni rek noonu la ñu jàppalee Ama Baldé mun nañu jàpp ne rek euh, ñëpp ñu ci ginnaaw ki nga xam ni moom mooy Ama Baldé ndaxte rek futur roi des arènes lan koo daal di euh, ci photo yi nga xamante romb nañ ko un peu partout fi nga xamante ni rek moom mooy Pikine waaye tey nag dañu fas yéenee waxtaanee actualité koy daal di nuyu dalal ko jàmm dalal jàmm ci bi Equivox waaw soxna si maa ngi lay gërëm bu baax di nuyu suñu sit bi di ku Equivox TV maa ngi nuyu di nuyu suñu caméraman bi di leen di ñaanal tey seen site bi tey suñu borom daf ko télé bu mag. waaw di di la di la baalu àq tamit xam nga woo nga ma ba sonn nekkoon ci ay xat-xat rek maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Pikine di nuyu ndaayaan bii ma nekk ni tey di nuyu aas ndaayaan ak euh, employé yi nekk ndaayaan yëpp. di nuyu bu baax ñoom euh, Mara ñoom euh, euh, Mor Ñang Xaadim Silla Lamine Silla mu ngi États-Unis ñoom Baara ñun ñoo fi doon nekk di sonn ci ay mbëru pikin waaw di gërëm moor maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm Mbay Mbay Diop président mali Gakou maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di gërëm Sénégalais yëpp. jërëjëf gërëm gi am na solo woote gi tam am na solo Pape Sarr waaye dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy komba Modou Lo Ama Baldé mu nekk combat boo xamante ni bëri na coow polémique bi bëri na naka ngeen koy dundee à presque huit jours yaakaar naa su ma juumul ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy bés bi waa gis nga ko kii bi bariwul bariwul coow lii du ma komba combat du ma dépassé drapeau roi des arènes mu ngi nii combat du ma dépassé drapeau roi des mu ngi nii dégg nga gis nga Eumeu seen Bombardier mu ngi nii combat duma ma dépassé gis nga bu nekk jaar na bi mu ngi nii Eumeu Sène Bombardier la mu ngi nii combat bu nekk jaar na bi mu ngi ci man combat bi Ama Baldé jot li ma li mille février 2018 mu ngi nii muy Ama Baldé Papa Sow combat duma ma mu ngi nii gis man lu may wax rek damay indi preuve mu ngi nii lu may wax damay indi preuve gis nga Ama Balde Papa mu ngi nii moom la Ama Balde mujjee bëre ah combat drapeau roi des arènes mu ngi si man kon benn combat duma indil benn dara fii laa ko toog fi combat fii la ma toll. est-ce yi bokk na itam. ku toll ni Modou Lo ngeen di bëreel moom mi nga xamante ne jamono ji moom mooy roi des arènes li ñu dugal ci combat yi mooy wax yu ñaaw yi rek man da book man bëri na ci ay wax yu ñaaw yoo xamante ne tey su ma demee ba dugg ci cent pour cent loolu moo tax ba pare suñu rak pik piki soxla kombaa bi mais ñoom ñëpp suñuy frère lañu du dëgg waaw dafa am benn polémique sax bu amoon fii buntu ndaayaan fii buntu ndaayaan bii fii bu dara dul dara lañ fi toog buntu ndaayaan bi ku ñuy wax Lamine Sylla mu ngi États-Unis ak moor Ñang ñoom ñoo fi mus a génnee ay sarax yu jëm ci mbër mënuñoo jot mbër bi mais man la ñuy woo téléphone ma ne Eumeu seen ñii ne leen nga génnee lii wala Boy ñaa wala Ama Baldé mais keneen ku fiy taxaw fii di wax da ngay wax lu la neex ñun ndaayaan avant muy nekk dara lañ fi toog kenn ki sax ñu ngi koy jiiñ sama rakk la kooku bokkuma ak moom dara du dëgg baylaa ku ñuy wax baylaa woon moo fi doon toog ñuy takk ay banderole suñuy cotiser menn Mor Ñang ak ku ñuy wax Lamine Silla ak Pape Sarr ak As Ndaayaan ñoom ñoo doon génnee ay ay banderole ñu ko fiy takk benn xale la moo toog fii di di expliquer di expliquer ay certificat médical ama mais kenn musul toog fii naan ay waa Ndaayaan dañoo bañ ama loolu waxu seytaane la. ñu déglu naan Pikine dafa divisé wu. kenn divisé wul ñi fi ñëw fii ñoo fiy divisé te minuit bu jotee ñoom ñëpp dem nañu changé beneen fast food man ba tey ñun ñu ngi toog fii. ñun kenn mun ñoo jaxase ak pikinois yi ñun bokkuñu ci benn opposition man Pape Sarr man tey dinañ ba gis ci Modou Gueye suba ñu gis ma si yeneen parti dañu dañu bàyyi loolu dañoo nekk si ay combat ñu fexe yàlla may ñu ndam mais dama ne la bépp sarax bu bu sa jóge ndaayaan nit sant ma ko moor Ñang la ak Lamine Sylla cotisation ñuy def fii ban dama ne la man ñëwuma fi tey Ama Baldé euh, booy Eumeu seen Lac de Guiers deuxième combat bi Eumeu seen la dëgër deuxième combat bi indiwuma ndaayaan loolu laay wax ci kooku doon wax fii kenn mus kenn ñi fiy toog ñëpp yéene Ama Baldé ndam benn booy la moo fi toog te bi man maa ko faj sama bopp maa ko wax ba mu jóg abal ma ñu nekk fii ah non da su ma waxee day jóg nañu bàyyi seen yooyu fii amul ndaayaan bi amul ku fi bañ Ama Baldé te baat boobu musu fi jóg kenn musu munu fi jaxaseeg benn nit ak Pikinois yi amul ñun duñ ko nangu dama ne la amul sarax bu ñu fiy génnee nga jox ko mbër ku dul man la Mor Niang di woo ak la ñooñu laay gërëm man ñooñu ñooy sonn ci bésu Pikine man Orange ne ak Wave taxul may wax de déedéet. tey gis nañ la li nga xamante ni coow li bari na sa diggante ak Eumeu Sène dafa am problème. yàlla tere ma ak Eumeu Sène. ndax nañ la micro nga ne Eumeu Sène yëgalul la combat bi. non waaw man noonu laay doxee noonu lay fonctionner. dégg nga Ama Balde bii damaa toog quatre ans du ma wax ak moom waaw quatre ans barki Seydina Mohamed keroog bi muy mujjee bëreeg Papa Sow lay suñu lay ñëw fii benn waay moo doon yàq deram fii may xeex ak moom muy Thierno Gadiaga ñëpp jaxasama ak moom am nit dem si Ama Balde xoolal changé wax ji mais tey Ama Balde xam na ni élément bu mel ni Pape Sarr amul fen te soo ubbee fii Ama Balde nga fiy fekk Eumeu seen komba bu mujjee gis na ma Eumeu Sène samay ndogu ñëw na non duma ci wax lan moo xamal ma du ma ci wax dam koy ñaanal yàlla may ko ndam dam koy ñaanal yàlla may ko ndam suba bu amaatee combat yëkkati téléphone am wala encadrement boobu di wax yëkkati téléphone am ne Pape kat am naa combat ma takk ci rib bañ a takk rib mooy dem si sëriñ wala dem ci samay ñi doon ñaanal fi ma doon dem ñu may ko ñaanal ko yàlla may ko ndam man kenn mënumaa jaxaseeg ëmmat seen man ëmmat seen du ma sigg sax xool ko dama ne la man Pape Sarr amul kenn koo xamante ne tey muy VIP yi laa wax ba pare nga jot avance may taxawaalu sa kër di si teg sama bët su amee na kenn génn wax ma wala nga jël avance bind enveloppe def ci bind ci Pape saar na kenn wax toppeewu ma leen loolu ñoom su may rakk lañu ma jël seen carrière nag lum garaaw commentaire yi saaga yi bu ñuy am ma la ñuy saaga bu coono di am amul kenn ku si gën a jege mbër nag ku ma ciy ëpp coono parce que damay jàpp samay rakk yu ma bokkal ndey ak ñoo am bés. dama ne la képp ku ma képp ku ma sonn ci yow loolu kay dama koy wax képp ku ma sonn ci yow nga toog weer woowoo ma si naa sa numéro. billaay wallaay tallaay ñoom ñëpp. képp koo xamante ne yow saar Sarr day sonn ci yow nga toog benn un mois nemmee woo ko ma supprimer naa sa numéro man noonu laay doxee no si si waaw waaw waaw yow bañ a woo non non Eumeu Sène ñoo bokk ndey ak baay moom loolu Eumeu aw maa moom problème Eumeu seen woowu ma déggoo bi si micro ma xas Eumeu seen dama ne la fépp ma doon dugal Eumeu Sène si combat bi dinaa ci dugal mais bu soobee yàlla laa wax li may li may wax mooy duma ci xas kenn duma ci xas tabaatin de parce que sekkuñu ko. waaye sa problème ak waa parcelle coow li bari na lan mooy sa problème ak waa parcelle waa parcelle ñu ngi génn di wax te gis nañ yor la ñuy attaqué. waa par sa saaga nga El Hadj Diouf loo gisee ak nga ne sa saaga nga. boobu mooy seexu naa. see waa mooy seexu naa mooy te muy def émission la ko subu xonk bi kese du kooku ngay <laughs> waaw léegi man may naa ko nee na Pikine la dëkk may naa ko mu ñëw changé si yérem bi dam ko ko ñaan maa la ko ñaan nee nga da ngaa am fit gëree nga te chaque jour sa émission la ko subu xonq boobu rek ngay sol ñëwal nga changé si ko moom kese la awma problème ak Serigne Ndiaye. ne déglu waxi waxi police tamit euh, ak ak combat bi jege na est indi problème ku ne xam ne violence ak làmb. comme police ci lan. Euh, police nga koy déedéet dama ne ko am na kenn koo xam ne moom dem na moom jàll na man waxoon dam ko woo téléphone ne ko li sorti bii nga ma defal ak li nga ma tuumaal soo ko seetaanul Cap Manuel dina ko seetaan 100 mètres te yàlla def na Cap Manuel la koy seetaanee non ban noo non ta kooku dafa génn cadre làmb mais ñun ñi nekk ci làmb du invitation dama ne la seexu naa boobu daam lu ma koy laa xamal lu ma koy dëggalal mooy tey dafa waxoon dafa nekk koñu Fallaye Balde la foowee dëgg la fala lang langee super mais dëgg la li mu wax noonu dëgg la de koñu Xaadim Sarr mais soo gisee ma ne ko su ma la jàppee naa la def bagum neen bi muy bi Sénégal di organiser fii Coupe d'Afrique lañ ko fekk bett ci biir super bi muy sàqu benn dof ku warul jigéen bu warul looloo tax ma ne ko après waa quartier bi ñoo ko def bagu neen mu ñibbi looloo tax ma fàttaliku la comme da koo fàtte man ma fàttali ko moo ne ko bu ma la jàppee naa la def baggu neen léegi nag xelam yëpp day day ñëw 92 si loolu loolu rek laa lay dénk man kenn musumaa jàpp si biir si peer may sàkku dof yow mii fàttalikul bi Sénégal di organiser Coupe d'Afrique li nga wax dëgg la koñ boobu nga yoroon si peer ama di la baleel si peer bi loolu dëgg la de waaye li la fa jëlee doo ko wax da ngay wax da continuer leeral li la jëlee ci si peer bi moo tax ma ne la bu ma la jàppee naa la def bagu neen bagu neen boobu laa lay leeral jour boobu noonu loolu lañ la def. problème ak journaliste yi lan la. ah amoo ak moom benn problème. journaliste yi. non non non keroog ñëw nañ kër euh, koñu Ama mais euh, ñu si bëri nanguwul ñu wax ba ñu jegee ki nga xam ne mooy Jules Baldé mi ngi wax naan journaliste yi am na ñoo xamante ne du ñu ñëw foofu lan la. non ñoom ñoo def seen réunion du Pape Sarr journaliste yi waa écurie Fallaye Baldé ñoo def seen réunion di Jules ñu jël benn carnet ku nekk ñu cité ñeenti journaliste dañ leen fa tere non li tax loolu waxtaanu biir néeg la ñoom xam nañu yow woo nga ma maj ma bañ tere naa la keroog bi nga fa ñëwee jëloo liggéeyu sa liggéey waaw kon génne sa bopp ana jëfi journaliste yu jóge léegi-léegi génne nañ ci seen bopp de dama ne la ñu ngi jëfru benn benn ñu ngi jëfru par benn benn man daal kii Euh, wax dëgg yàlla am na benn côté boo xam ne lu ma metti woon yëpp jamaïcain fajal na ma ko mhm. lépp dina leer. benn journaliste bu tudd euh, Abou Ndour yëkkati na ay kàddu euh, jëmale ko ci Ama jege nga Ama nee na Ama dafa am blessure bu muy wëyaale loolu la nga ci mën a wax. <laughs> non kooku pour man dafay am appartement foofu ci biir kër gi appartement bu baax lañ ko fa jox ngam naa moom wala mu mu mu bokk Ama benn lal. wala tamit muy fekkee ay réunion écrit Fallaye. non moom génn na xam nga génn na din <laughs> dañ ci ba set wicc du ma ko wax suma frère la mu ngi doon wax dama koy sànni xeer mais sànniwu ma ko xeer dama ne ko événement yu mel nii lépp loo siy wax rek na nga wax lu la leer yaa ngi gaañ promoteur bi di gaañ mbëri di gaañ supporters yi loolu la amul lenn loo xamante ni rek mën nañ ne gàllankoor la ci bant laay laal yàlla bu mu ko si am komba bi tuuti moo ci des ñaanu ñu yàlla dara dal ko mu li may ñaanal Ama laay ñaanal Modou Lo di ñaanal Modou tamit yàlla bu ko dara dal ak képp koo xamante ne tey yaa ngi jege Modou Lo waaw ba mu des promoteur boobu jege ko ñu si des ñëpp nag dam leen di ñaanal yàlla bu leen dara dal. promoteur boobu jege ko tamit moom moo moo tëgg làmb ji tamit. kooku tëddu tëggul làmb ji de déedéet <laughs> Luc Nicolaï moo tëgg làmb ji waxuma ak Luc Nicolaï de déedéet yàlla tere mu ngi foofu ak moom dama ne damay ñaanal ñoom ñëpp jàmm comme kooku bëgg lu jàmm yàlla bu mu am jàmm. yàlla moom bëgguluma jàmm moom yàlla bu ko yàlla may jàmm mais ñi si des ñëpp commencé ko ci jamay Jamaïcain moor bu parcel ñoom ñëpp ah, ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla may jàmm beneen question mu ñëw. Euh, waa parcelle ñoom tamit ni ngeen takkoo noonu la ñu takkoo nee nañ ay waxi kese daanul ki nga xam ne moom mooy Modou Lo loolu yóbbul seen fit. non non non ñoom am nañ ci plein droit parce que tey ñun li ñu soxla ñoom ñoo ko yor léegi nag naxanteeg ñoom la ñuy def rek ba jël ko. dañ waaw waaw xam nga ñoom tamit ñoom am nañu plein droit déglu ma rek ñoom dañ leen di nangul loolu lu dëgg dañ leen di nangul ci li ñu nekk mooy tey dañoo war a taxawu seen mbër te seen mbër tey li mu yor moom la ñëpp soxla dégg nga may si woo président supporteru Modou Lo bi bu soobee yàlla open press u Ama bëgg naa mu ñëw indi drapeau wu parcelle man ma indi drapeau Pikine journaliste yëpp ñëw taxaw ñu def fair play barke man maa koy def te loolu dama koy def billaahi wallaahi dama koy def Modou Lo fekk na ma police Pikine de booy nekk si jéggi tali bi ak ay xeer yu bari mais bi ma génnee la coow lu jeex Modou ñibbi si jàmm waaw Modou ñibbi si jàmm dégg nga Serigne Ndiaye ñëw na fii benn booy di ko tooñ bii sotti Modou Lo gàllaaj Serigne Ndiaye dem na xeexloo na ma fii ci essence bi ne ko kii am na droit dugg Pikine Serigne Ndiaye mu ngi may dégg dégg nga ma xeex moom xeet Serigne Ndiaye xeex loo na ma fii tali bu mag parce que booy bi da koo romb di ko saaga di ko tooñ ma ñëw bàyyi ba Serigne Ndiaye dem Serigne Ndiaye yëg na problème bi yooyu du bokkul ci làmb. waaw gis nañ combat bi Modou day ree rek Ama mooy wax mais Modou day ree rek ree boobu gisalu leen. non non Modou Lo reewul. Ama Modou Lo mu ngi ree même euh, face to face ba Ama ñëwulee bañ koy laaj da doon ree rek. non Ama da ko doon def li mu doon def nit loolu la ko doon def. mystique du gàllaaj du gàllaaj non non non man combat bi man waxuma ci waxu gàllaaj ñun daal Modou Lo fu mu xam dem na fa ñun it fu ñu xam dem nañ fa Ama Baldé mu ngi doon defee face à face bi suñu kër ne ko bu ma la teeloon a gis duma ci def taw non ñun es ñun instant nii ñaar ñaari paquetu mbiskit yu cent franc lañ jënd ma xool ak soow fanweer yaa ngi may dégg que yi si des ñu dënd si café Touba. Ah, kuy bëree mbër bu toll ni Modou Lo bëgg a jël titre roi des arènes déggoo ma ne la ndaanaan la bil suñu ñun ñii dañuy nekk fii di wax rek mais billaahi wallaahi tallaahi Modou Lo ndaanaan la. ndaanaan bu di nga bëre moom di di di saako ay ah, nekkee ama la ama du si def taw. non duma non du ma ko waxee dama ne la gëm-gëmu ama laay waxee si gëm-gëm gëm bi ama am si laay waxee mais dama ne la. billaahi wallaahi wa tallaahi dama leen di ñaanal jàmm barki yàlla am naa fa. suñuy doom mu ngi foofu di sëy ak rawaan bu rock énergie suñu doom la dégg nga rawaan ñun rawaan bu rock énergie ñun ñoo ko may soxna du dëgg ñun dañ fa am ay mbokk am fa ay kër am fa lépp am fa ay xarit ñoom it noonu lañ ko amee fii dama ne dama dañu doon wax ci làmb rek pour jaay combat bi du dëgg mais képp ku ci ñëw ñu ngi leen di dalal si jàmm man loolu laa bëgg a wax communiquer ci non violence bi mais bu nekkee xotteeku rek fii la fekk baax. taxaw nañ tamit wax ma la bu nekkee xotteeku xotteeku fii la fekk baax mais barke Seydina Mohamed nu ma bëgg làmb ji mel man Pape Sarr Pikine mu mel ko man jëm ji ngay gis nii nu ma bëgg làmb ji dawee demee noonu noonu lay demee moo tax lii moo tax sit léegi bu ñëw dama siy communiquer pour jàmm am ci loolu laay ñaan du dëgg loolu laay ñaan ñu may journaliste yi jàmm may supporteru Modou Lo yi jàmm may supporteru Ama bi jàmm ba nga xam ne tey promoteur bi xaalis bi mu ciy dugal ah yàlla génnee ko si ba mu jot xaalisam di wax tamit combat Eumeu Sène bi ñu ngi siy woo waa Pikine yëpp ni xam ni jour boobu le douze la ñun suñuy combat dafa tegaloo xam nga tamit ñun dafa jot ñu jàppale Baye Ndiaye taxawu ama Sène di rafetlu geste bi mu def ci open press Pokola bi di won ni tey Pikine la benn bopp la kenn mu fii seytaane amu fii <laughs> dégg man duma ma topp Eumeu Sène sonn ci moom ba carrière am jeex ba mu nekk ci dernier kombaam yii ñun ñi di ma dégg ak Eumeu Sène doxewu ma noonu de man billaahi wallaahi tallaahi li ma daj ci ay kombaam waxuma waxuma ay mbokkam daj nañ ko ci mais néew na ko ko si dat daj kon nit ñi nañu xool nu mu gën a rafetee ñu koy wax combat Boy ñaa bii li ma ci daj dajuma ko ci combat Eumeu Sène Bombardier bi dégg nga lan nga ci am ay nit yuy taxawaalu yoo xam ne ay wax yu bon la ñuy wax ay wax yu ñaaw du dëgg barki démb laa dajeeg booy ñaa ci station bi ma dugal sama ma nekk sama scooter mu nekk ci otom non non ñoom ñaar ñoo ko ëmma seen mook booy ñaa mook Ama Baldé bi li bi séq man du ma ko fekkee képp ku ciy wax rek ci diggante boobu non non doo gis yooyu duñ doo ko gis ñoom seen yooyu ñuy def filmer wanewu yooyu ak ay mbër di wanewu yooyu ñooy duñ ko def ñoom fi ñuy dem ak fi ñuy fekkante wax dëgg yàlla xaw ma ko ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dañuy bàyyi ay wax yu bon yi ñuy wax ak wax yu ñaaw yi lu dëgg man kenn duma dugal sama diggante ak sama rakk yi bi ma ciy sonn fekkewu leen dégg nga maa fi indi mbër ndaayaan man maa fi indi mbër képp kuy wax ndaayaan fii micro ñu lay jox micro ci man mii nga ko gisee ndaayaan muy man muy Lamine Sylla muy muy Mor Mor Ñang nañu bàyyi li ñuy def di nuyu ñëpp di leen gërëm di leen jox rendez-vous incha allah loolu la ñuy ñaan ñun de loolu la ñuy ñaan maa ngi wax képp koo xamante ne tey yaa ngi Gàmbi nekk Casamance ak fépp képp ku yor sa kurus xam nga muy waa Cubalel waa Fuuta waa Boggee waa Njum waa Xayra Raaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax ñu jàpp ci kurus ñaanal Ama Baldé suñu borom may ko ndam di ñaanal bu baax képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo waa Tiwaawan xam nga ah Kaolack waa Medina Baye ñoom ñëpp xam nga waa Ngumba Ngewul xam nga xaadir yi maire Yacine Doucouré di la di wax nga jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax no jamais jamais di ñaanal bu baax suñu sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacké sëñ Taha mu sëñ Modou Habib ah njabootu sëñ sëñ aafiya yëpp waa tali bu bees yi xam nga ah ak njabootu sëñ Abdou Karim yi xam nga ñoom ñëpp sëñ ateex njabootu sëñ ateex yëpp ñu ngi leen di woo ñu jàpp si kombaa bi xam nga maa Ibrahima maa ngi lay woo bu baax a baax xam nga ak ak sëñ Assane Mbacke ñu ngi leen di ñaan bu baax ngeen ñaanal ñu bu baax a baax a baax di wax waa Pikine ñoom ñëpp nañu jóg ci fair play ñu xam ne tey suñuy nawle waa parcelle lañu ñoom ñoo ñuy fekk si ñu wax maa ngi ciy wax Pikinois yëpp ñu dalal leen si jàmm bu kenn xaañ kenn bu kenn xeex ak kenn képp ku si yor sa boisson mën ko xelil waa parcelle nga def ko ma koy wax tamit sama frère yi nekk parcelle ñu xam ne lii dañoo doon def rek pour jaay làmb ji pour wax combat bi jaay parce que tamit promoteur bi rek laa doon dimbali di wax tamit Pikinois yëpp nañ jàppale Eumeu Sène ci combat bii di ñëw jàppale ci suma frère Baye Ndiaye di wax Paate Balde dalal jàmm man am naa coordinateur léegi sama ji Paate Balde fu may dem moom laay àndal mooy sama coordinateur si wax ji ma wax nag bu amee benn lënk-lënk rek nga xam ne nit kese moo doon wax maa ngi siy jégalu ñëpp di rafetlu tak seen ñëw bi fii di nuyu équipe bu Equivox yëpp di leen ñaanal si kaw ba si directeur bi xam nga képp ku ci nekk tam yàlla defal la jàmm ama di leen ñaanal télé bu mag a mag a mag a mag jërëjëf. kontaan nañu am Cheikh Fidèles internet yaakaar naa ni ñoo ko gisandoo. tey Pape Sarr bu Pikine moom la ñu euh, seet si woon waxtaan ak moom ci li nga xam ne rek moom mooy euh, làmb bi yaakaar naa ni dégg ngeen ko kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko waaye li ci gën am solo moom mooy euh, apaiser ne bu baax a baax ne làmb ji bugg ci benn violence jàmm la ci bëgg ak salaam ba ci jour ji rek ndam li daal di ñëw fi nga xamante ne rek moom mooy pikin di leen jox di daje très prochainement ak beneen invité merci